bilaay teraanga doomu aadama liggéey doomu moo ko mën a joxe bilaay ci lu mu néew télévision Futur Média ci seen émission jaar-jaari jàmbaar génn feneen tey nag dañu doxantu ba Kéré àll nekk ci benn gox bu nekk fii ci région bu cees mbokk yi tey beneen jàmbaar moo ñu yëkkati askan wi sax fii boo leen laajee ñu ne la jàmbaar fàq tëdd la Mairème Kéré lay wuyoo soxna la soo xam ne dama amee fukki at ak juróom benn ba léegi mi yëngu ci wàllu développement wàllu leadership féminin wàllu santé de la reproduction di dugg ci àll bi di ñaax askan bi door association association ba màgg tey jii mu jur ay junni junni nit yu bootu ci ginnaawam xayma yi sax na jege nañu ñetti junni yoo xam ne ay membre lañ ci association bi nga xam ne ba muy door xeex jàngoro ji di sida moom moo ko taxoon a jóg muy jàppale askan wi di liggéey ak askan wi door ci pantre tey ñu yor ay màkkaan yu bëri di fekk nit ñi ci dëkk bi di waxtaan ak ñoom di leen financer di leen jàppale soxna soosu moo ñu yëkkati ñu bëgg jaar ci ay tànkam su ma nee télévision Futurs Médias ak seen émission jaar jaar jàmbaar dañu génn fenn tey dañu seeti mag mu am expérience bu waxtaan ak ndaw yi wax leen fan la jaar ba réussir suba gi nag xaw na teel waaye nag kenn du ko yee loolu moom c'est sûr parce que xam nga lu tax ñu wax ko jàmbaar la jàmbaar ca fajar lay jóg soxna Mayrem Kayre mooy sunu jàmbaar dañuy ànd ak moom passer la journée xool nan lay jàppalee askan salaamaaleykum. maaleykum salaam. ana soxna Mariam. maa ngi nii. Kayre. ah Dieng Sall. Kayre Dieng. Kayre na nga def. ñoo ngi sant bu baax. ça va Pape. maa yaa ngi si jàmm. ñu ngi sant yàlla bu baax Kayre àll. ñu ngi lay nuyu bu baax. nawet bi jeex na de. waaw ah wàññiku na. wàññiku na waaye jeexagul. nee nañ ci. ñu ngi préparé déq gerte yi. yéen a ngi préparé déq gerte yi déq gerte waaw góob nañu ko ci ba pare. góob ngeen ba pare. waaw nawet bi ra neex na de. macha allah waaw macha allah. dina gaaw na neex na waaw xam naa fi mu ne ñu ngi ci liggéey bu baax waaw ñu ngi ci liggéey bu baax très ñu ngi ci liggéey bu baax quand même ñu ngi liggéey ci yëngu yu bari waaw xel gën na daal daal waaw nga xam nga nawet nag dafay dimbali tam macha allah naa doon li ma doon wax sànq yeewu ñu la jàmbaar fajar lay jóg mhm. ba nga jullee ba noppi moom lañ nañu moom bu jullee ba noppi sax soxna si du tëddaat mhm. daanaka day nekk ci activité yi mënta ñàkk mënta ñàkk mënta ñàkk jërëjëf addinaa dig bi doon noonu merci beaucoup saa boo xëyee rek am na lu la war. am na lu la war li saa yoo xëyee rek am na lu la war. waaw <laughs> ah, rawana nag ñun jigéen taxawaay jigéen ci kër mm-hmm. taxawaay jigéen ci société bi mm-hmm. li nga xam ne moo la ci war boo ci jëm di bay sa war mm-hmm. da nga tal leen lu du toog sagam yàlla may na la wér jërëjëf dégg nañ dëgg merci xombal laa juddu mais fii mooy sama cosaan mais sama papa bi nga xamee ne magam bi mu bokkal baay moom moomu dëkk bi moom daf ne fi nekk di xatal doomi baayam day buuse dem xamul dëkk fa parce que bëgg ko xatal xam nga bu njëkk doomi baay dafa am nu ñu doon dëkkee wala ñu doon nekkee après ci la demee xombal man sama mag yëpp fii lañ juddoo ak sama yar yenn rek waa man xombal laa juddoo yàlla dogalee ma juddoo xombal nag yaroo fa ba xamee bi sama fukki at ak ñeent fukki at ak juróom cooñ ma may waaye kiñ ma may fii la dëkk Kayra gi ma dëkk ma dellusiwaat Kayra nag nekk fi di fi ñeent fukki at yu tegal maa ngi kaye. yéen yàlla dafa ma masanatu nag ci may jëm di organiser daal di def dara bi ma jegee xambal ñëw kayre dama daal di kere dajale jeg ji nga xam ne ñoo maase ak man ñuy def benn visite suñu bopp. di visité dëkk bi suñu gisee ne am na jigéen boo xam ne xëyul bale ñu alamaan ko juróomi dërëm buñu gisee jigéen boo xam ne ndaam raxas ko segg ndoxam ñu alamaan ko juróomi dërëm. juróom-juróom yooyu suñ ko boolee su fekkee ne asamaan a ngi bëgg a bi dañ ko jënd ji ay garab ay nuwaakinin ay aspirine ay garab yu tuufaay ngir bu nawetee ñu di ko jox xale yi te mën na ni activité boobu tey case de santé bii nga xam ne mi ngi kay rek foofu la law bu la soqee ko bi mu nekkee moom jeeg bu ndaw ñuy root ca teen ya robine amul ci kayre gi bu ñu demee root ca teen ya moom day toog woote benn bis réunion ne léegi nag jéeg bu dem rooteeti da ngay jël moo morso nga lal ci sa ndaa nga segg ko bu amee benn wallax njaan wala benn kii dama lay marqué am bis yoo xam ne bu yëgal kenn day jóg rek dugg dëkk bi ku sa ndaaset baax na ku sa ndaasetu da lay marqué fukki dërëm fukki dërëm yooyu xam nga nu mu ko daan def am na ay xale yu xiiboon yoo xam dañ daan pesé fi centre bi da ko daan toggale ay lekk di leen ko jox xale yi pour léegi ñu nekkaat forme ba xiiboon gi di dañ dama woote réunion ne leen dama bëggoon ñu def benn organisation ngir suñu dëkk gën a set ngir suñu dëkk gën a taaru ngir suñu wér-gu-yaram gën a mën a yokk ci biir loolu lañ waxtaanee nag ne kon nañ koy defee mooy nañuy wël suñu bopp noonu tant que jigéen dañuy tànn benn commission ñu tànn commission boo xam ne juróomi nit lañu juróomi nit yooyu ñooy ànd ak man di dugg ci biir dëkk bi di xool kër yi du xool ndaay ki loo gën a daw rek ci mbir da lay gën a yee da gën a xam bi yàlla dogalee ma nekk ci loolu ci activité boobu nekk ci ba yàlla dogal association bu ñuy wax maison familiale rurale ñëw fii ak Kairé mooy euh, bâtiment bi ngeen seen à côté ñoom ñëwoon ngir di former jigéen ñi ci la yàlla dogal la ñu former nag defal ma formation man ak yeneen délégué yi nga xam ne ñoo fi nekkal formation boo xam ne euh, ci wàllu développement la jëm jàngal jigéen ñi nan la ñuy def booy di ñaw di ràbb di cuub ci yooyu jamono ñu nekk ci ñaw boobu ak cuub bi ak ràbb bi daanaka mën nañ ne ci wàllu développement foofu laa commencé. ñu continuer ci loolu ci formation boobu euh, ñu jëlee ci nag lu bari di former dem bay jàngal xale yi ñu ñuy ràbbe ay concept nu ñuy defee yu mel noonu bi ñuy continuer ci loolu di continuer ci loolu di continuer ci loolu ba yàlla dogal na euh, mbir mi gën law ñu dugg ci. di jaay jënd jaay ñun di jaay ay kecca di jënd dem mbuur dem jiwaal di def yu mel noonu xam nga nit ki lépp loo gën a daw ci mbir rek sa xel da cay gën a naaj nga gën cee yeew mën naa ne foofu mooy sama début de développement ñu continuer ci loolu continuer ci loolu ba yàlla dogal groupement yi taxaw ma daal di nekk présidente groupement nekk ci biir groupement bi nag di ci yëngu di animer jigéen ñi lan lañ war a def wan yoon lañ war a jaar ngir ñu mën a suñu bopp waaye mën na dimbali suñ njaboot waaye itam nu mën a jàppale suñu ay borom kër ba suñ dundin ci suñ biir kër gën neex ci loolu nekk naa ci ab diir boo xam ne xaw na yàgg yàlla dogal ñu eh, tànne moo fi yóbbu ma Thiès ci maison familiale ma nekk délégué régional xam-xam ba gën a yaatu a ah, expérience bi itam di gën a yaatu waaw ci biir loolu nag liggéey bi nga xam ne maison familiale doon na ko liggéey eh, ñu dem ci dem ci dem ci nekk ci nekk ci nekk ci ba nekk ci ay at yàlla dogal expérience boobu nga xam ne xam naa ko ndax booba ci jamono yooyu booba yombul woon pour góor ñi bàyyi seen soxna yi ñuy dem di yendu àll di fanaan àll ca jamono yooyu ndax booba xamaguñu dëgg-dëgg lan mooy développement waaye man yàlla dimbali na ma ki ma yàlla boolee lan moom amul woon yooyu problème yombaloon na sama liggéey ci biir loolu tax benn euh, projet boo xam ne mi ngi nekkan fii ci Njagañaaw ñu di ko wax kuluk gànjul benn ONG bu ñuy wax Oxfam financé woon leen benn programme bu mag ay teen yoo ne dañ koy naan ak maraîchage mais union la woon union boobu ku ñu wax Mor Diop moo ko jiite woon waaye yàlla dogal union boobu amul woon benn jigéen bokku ci woon biñ demee Oxfam ne Oxfam ne loolu ñu ne projet bu wutul dañ ci soppi wala ñuy gàntal ko parce que développement góor ak jigéen ñoo ko bokk comme jigéen ñi bokkuñ daal dañ ngeen di fexe jigéen ñi bokku ci ñu ni ko kooku ne ko nan lay def pour man jigéen ñi man ci bokk mu ni ko man de mën naa la joxañ benn jigéen boo xam ne moom fu mu toll mi ngi xeex ngir jigéen ñi am baat waaye mi ngi xeex itam ngir jigéen ñi am man-man ak kattan moom jigéen ñi rek ñoo ko itteel su ma la booleeg moom yaakaar naa ne boo demee sa waxtaanee moom su leen jàppalee góor ñi daañ bàyyi jigéen ñi ngir ñu mën a ñëw ànd ci biir liggéey mu ne ko kokkan la mu ne ko ñoo xam Marème Kayre mu ne ko fu mu dëkk mu ne ko mi ngi dëkk Kayre àll ma benn guddi rek mu gaare fi otom daal di ñëw nuyu ma ni ma yow de dañ ñu boole ma ni ko ku ñu boole mu ni ma ku ñu wax Abdou Sarr directeur Oxfam moom mu wax ne dañ la feet ci parce que man dañ ma financé benn programme programme boobu jigéen ñi bokkuñu ci te nee nañu ma faaw jigéen ñi bokk ci wàllu ñoom programme bi dañ koy arrêté parce que développement góor jigéen ko bokk ma bëgg na ku ma dimbali ñëw jàppale ma ngir jigéen ñi mën a bokk ci liggéey boobu ma ni ko amul benn problème waaye man de leen am na maanaam ni ko man moom mënu ma bàyyi sama kër di liggéeyal kenn weer loolu mënu ma ko def parce que sama activité ak sama njaboot mooy ma may bàyyi sama kër di dem di nekk fenn weer ñu di ma jël lu ma léegi nag teenoo def nii ma ne ko nag mu ni ma bu yàlla dogalee nga dem ngay eh, am fee semaine boo ñëwee fi am semaine weer bi nga am sa kër ñaari semaine am fa la ñaari semaine ñu ko jël si ma loolu moom mën na nekk mu ne waaye jàpp ci soxna si ma nekk amul benn problème bi ma wax leen ko ñooñu ne ko na ñëw ñu waxtaan ñu daal di may woo ma dem ma signéente ak ñoom benn contrat ñu wax ma ma daal dama bëgg ñu am contrat mois nga dem jàppale leen ndax jigéen ñi mën a bokk ci biir programme bi ma demee nag man tam ma daal di waxtaan ak ñoom ma signé contrat après daal di dem di def ay sensibilisation di plaidoyer góor ñi di wax ak ñoom leen xamal na leen yéen lii ngeen gàntul waru leen ko gànt parce que seen njariñ la parce que développement góor ak jigéen ñoo ko bokk kër gi itam njaboot ki góor gi jigéen ci ñoo ko bokk te benn loxo rek nekk ci kër moom mooy joxe dépasse moom mooy joxe njëm moom mooy faj xale yi moom mooy yore soxna si mooy yore léppam est-ce que loolu bi ngeen seetee mettiwul ci yéen te tey bu jigéen ñi duggoon ci biir liggéey bii ngeen di liggéey li ñu am bu ñu ko yi rek lañ koy dellu siwaat ngeen boole seen doole boole seen loxo yore ko seen kër seen kër neex man dama gis ne man man benn soxna laa sax sama kër mais sama borom kër xam na ne liggéey bi may def am na solo parce que li may liggéey lépp ci kër gi lay dellu siwaat bu dee xam-xam ci kër gi lay dellu siwaat bu dee man ma nag am am ci kër gi lay dellu siwaat noonu laa jàppee ak ñoom di ko waxtaan ba yàlla dimbali ma ba góor ñi ma convaincre leen ñoom ñëpp jigéen ñi daal di buubu daal di bokk ci biir programme bi jigéenu Sénégal njaay yéen a ngeen gàcce nga laama la njukkale ndax yéen a ngi liggéey bu baax a baax di dimbali seeni askan ndax xam ngeen léegi ne jamono changé na fu góor taxaw jigéen taxaw na ndax yéen ngi liggéey bu baax a baax comme ñaari semaine rek doon def de moo continuer fa bi at mii laata jeex am lu ma fa nemmeeku ma gis ne jigéen ñi wax dëgg yàlla son nañ trop guddi ñu tëdd ci lal dañuy wal ba asamaan set dañuy nekk ci teen yi ba asamaan set jigéen ji ci tollu diggante di nga def 13 kilomètres soo ko dem fu ñu amee doom te saret moo lay yóbbu ñaar dañuy jógee kulu foofu ñëw xombal wala ñu dem ña nga ñaaw affaire boobu metti ma ma daal delluwaat seen partenaire boo waxtaan ak ñoom ne ko dama bëgg ngeen jàppale jigéen ñi ci ñaari anam ba ñett ñu ne ah, mais benn jigéen ñi teen la ñuy fanaan di root bu ñu rootul yaa ñu ngi dëbb dëbb la ñuy fanaane ku ci tollu diggante da ngay dem ba njaga ñaaw wala nga dem ba xombal di fa amee ji doom te loolu mën naa indi ay taftalam te léegi la ñu dajeek moom ba bëggoon ngeen dimbali leen ci loolu benn programme boo xam ne dina am euh, wale boobu carte de santé waaye tam dana am alphabétisation ndax lu bon bon ñu mën di bind seen langue mën di liggéey dana gën a comprendre liggéey bi waaye itam ñu wutal leen ay machine wal ndax ñu mën di noppalu tuuti ñu ma amul benn problème daal di def benn programme ci saase seen partenaire koy financé bi mu leen ko financé nag déglu lu baax faatu fi affaire bi jógee bi mu leen financé programme boobu ku ñuy wax docteur Bassa dakaar la nekk mu ñëwoon fa ci cas de santé bi def benn exposé ci exposé boo mu doon def mu yore ay cassette ak vidéo indaale nag li nga xam ne ñu ngi dund ak doomu jàngoro daal bi muy yàlla ah ci exposé bi keroog laa mos a jëkk a jàkkaarloog nit man muy wax ci nit ki nga xam ne day dund ak doomu jàngoro mais bi ma dégloo affaire bi faatu affaire bi caa tiital ma daal tiital ma ma déglu nag docteur Bassa bu baax maa ngi yore sama bolog noonu rek lu mu wax bu ma leerul ma bind dina ta samay question dina ta samay question ba mu pare bi mu paree ma di ko posé samay question di ma tontu di ma posé samay question ba di ko posé muy tontu ba yàlla dogal sama question yëpp jeex mais booba faatu ba ma peese fi ma toog bu fekkee man bi may toog bëri go laawoon boo ma peese ma tatuma fukki kilo ndax tiitaani lan moo ma tiital ma jàpp ne nun ñi nga xam ne ñoo ngi milieu rural ñu ngi monde rural la nekk ay femmes rural lañu jaboot suñu njaboot yi ñii ngi dem Dakar ñii Tëngéej ñi feneen ak feneen fu ñu waaye nga fay dem di bindaadu ji sax di liggéey te gis nañu ne ñoo ñuy dem di liggéey bu dee groupe bu diis xale lañu ba ñu ñëw àlla kuli àll lu mu néew néew ñaar dana ci indaale ëmb wala ñu indaale doom est ce que ñoo ñuy dem di ñëw te xamuñu dara ñoom mënuñu indaale doomu jàngoro ci dëkk bi te ñooñu fan la seen wajur amee information ba man a wax ñoom fan la ndax jamono jooju booba ci en milieu rural njàng mi bariwul booba njàng nasaraan manqué na fi trop moyens itam bariwu fi mu booba ñi nga xam ne ñu ngi ciy wax ci doomu jàngoro sida ñaari anam rek la woon ci journal yi ak ci yi ma nag ci sacé du ñi nga xam ne ñoo ngi dëkk ci àll bi ñu nasaraan man di xool journal yi di xam lu xew amuñu ay moyens di seetaan di xam lu xew ñun fan la ñu jëlee information su njaboot gi fan lay jëlee information lii fan la jëm ak noonu te bu ñu xoolee tey développement Sénégal au moins sama bopp laay waxal de au moins am na fu mu jógee am na fu mu toll est-ce que li ñun bu ñu ko seetaanee rek bu yàggee du mën a def dara suñu développement réew affaire boobu laal sama bopp ma jógee fa ñu gis mais semaine boobu ma ñëwee faatu xaw ma lan laay def affaire boobu nekk sama bopp jaaxal ma may laaj sama bopp man nan laa war a def fan laa war a jëm. fan laa war a taxaw lan mooy sama war a got ci lii kenn ku ci nekk tey boo laajee xale sax mu wax la lan mooy sida lan moo ko joxe ak naka lañ ko naka lañ ko war a moytoo léegi nag góor nag bala moo mat dangaa góor ci dara yéen a ngi nuy yee ndax suñu doom yi dem di liggéeyi Dakar di ñëw di àndaale am te mën nañu àndaale doomu jàngoro bi ngeen ne loolu dañoo bëgg mu arrêté ngor bala moo mat dangaa góor ci dara ñu dikkaat boobu juróom bii lañ ci tabax ñu dikkaat toog waxtaanaat ne nit ñi li ñu wax dëgg la mënoo téye nit ki te jàppul ci dara ñu lijjanti benn procès boo xam ne nii ñu commencé ko jox nit ñi di ko commencé jox nit pour ñu seen doom yooyu ñu dem Dakar di liggéey ñu mën a toog ak moom jàpp ci loolu ci la ñu taxawalee procès lañ njëkk a taxawal. maa dem seeti chef de village Kër la njëkk a seet waxtaan ceeg moom nattali ko mu ah, loolu day jar na sonn lépp loo xam ne daal mën na lor ki xamul fexe ba nit ki xam na ko bañ koo lor moom. xalaat ci liggéey ci am solo man de su fekkee ne xalaat nga loo yaakaar ne man nga ko def maa ngi ci sa ginnaaw pour ànd ak pour jàppale la ma ni ko xam ah, ne waaw maanaam dem seeti imaam bi ma seetee imaam waxtaan ñeeg moom moom itam nettali ko li ma gis ak fi ma yóbbu mu ni ma lii daal pour nga liggéey ci sax ku ci wax rek mu ne ma yaa ngi ci jaar ndax l'islam set la bëgg te lii tam nit ki mënul jaamu yàlla mënul sotti te wérul ndax ki wérul jaamu yàlla mënul wér kon loolu képp koo xam ne jóg nga di wax walla nga xeex ngir ñu am xam-xam ci loolu man cee aaru man danaa ànd ak yow ci loolu lépp loo ci nekk soo ba jant bi so naa ci ànd ak ma ah, ne ko ah, ma ne kon baax na waaw ah, yem ma foofu ma daal dem ci yeneen kilifa yi fi nekk kilifa diine yi ak kilifa administration yi nga xam ne ñu ci wax dem seeti Thiénaba yi bi fi an jamono yooyu waxtaan ak moom mu jox ma ndigal war ma ni ma lool daal ku ci nekk sax yaa ci jiyaar luy tax doomu aadama wér ba mën a jaamu yàlla daal képp koo xam ne yaa ngi ci liggéey moom jàmm ci jaar nga nekk ma daal dem ci ki nga xam ne booba sëñ Abdou Lahad Mbacké moo fi nekk moo ko présenté ma dem ci moom moom itam mu wax ma lool ma ne ah kon mbir mi léegi am naa ay pexe nag ngir jéem a xam nan lay def man daa di xalaataat beneen xalaat bu des mooy lii du liggéeyu kenn nit du liggéeyu ñaar du liggéey ñett nan laay def te itam liggéey la boo xam ne liggéey bu metti la man daal di seet ñi nga xam ne xam naa ci ñoom ne wóor na ma ne xol bi ma yàlla jox ma mën a sonal doomu aadama te duma ci yaakaar dara ñoom mel nañ ni man su ma def bi sax damay bëgg a jooy yàlla xam na ko ma daal di seet ñi nga xam ne fukki nit ak ñett yoo xam ne wóolu naa leen xam naa ne ñoom mën nañu liggéeyal askan wi te duñ ci seenu dara mën nañu rey seen bopp ci askan wi te duñ ca yaakaar dara ma waxtaane ko ak ñoom bi ma ko waxtaanee ak ñoom. ñu daal di may ànd ak man ci loolu ne ma daal nan ànd def ci dara. li ma neex commencé dem ci district sanitaire yi di waxtaan ak ñoom ñu di ma di fa ay document ma di ko traduire langue nationale contacté ku ñu wax Gary Engelbert ku ñu wax Abdou Sarr moom ma boole woon moom mu defal ma formation bu wér ci lan mooy doomu jàngoro bi yan mandarga la am nan lay wàllante wax ma daal ba ma xam ne man daal ma def ay gëstu ba wóor na ma ne xam naa ci loo xam ne su ma ko waxee kenn du ko dindi ma daal di woo ñooñu waxtaan ak ñoom lépp ma sotti ko ci ñoom ñu daal di woowaat mu ñëw sottiwaat defal na formation une semaine fii à Kayre bi loolu paree nag may leen léegi nag léegi su mooy nañ xool nañ jéem a kuréelu nag pour jéem a attaqué bi nag. keroog ba mu sos kuréel bi suba teel damaa nekk ba pare mu woo ma ne may mën a kaay ma ñëw mu ne ma ah dafa am kuréel gu may bëgg a sos dama ne ko kuréel lan la mu ne kuréel gu muy wax si daa dañu bëgg a taxawal ci monde rural te damaa bëgg man mii ma jëkk ko fee taxawal. ma ne ko xam ah, mu ne ah, ma ne ko léegi de loolu mu ne ah, ma ne ko boo ma ci woy damay sawar dama ciy dem ba jeex. ba ñu koy sos nag booba defe naa ne metti woon na trop ndax boobu dañuy dugg ci ay saret di wàcc keroog ba ñu jëkkee defal formation ndax bala ngaa dugg ci mbir danga nga cee war a am xam-xam bu leer ku ci wax Samb Ngone Mbuub ak benn tubaab bu ñuy wax gari Gary Engelbert moo jëkk a defal formation maison familiale bu ñu defaree formation ba nga xam ne mën nañoo war a wàcc ci terrain bi pour wax ak nit ñi lan mooy sida ak lan moo koy joxe léegi dag ñu dugg di dem. ma xam mooy ñan taxawal benn association boo xam ne day jóg de xeex doomu jàngoro bi ñun daal di def assemblée générale daal di taxawal suñu bureau daal di commencé suur bu jëkk bi ma dindi juróomi junni teg ne leen nag lu waaye am teg ci. moom moo daan yëkkati xaalisam bi ñu luyee sareet yi ak bu ñu demee ci dëkk ba lañ fa war a toggañ moom moo ko daan joxe ñun ko am sa 1000 teg te ku amul ñu dem luyee sareet noonu dem. ñu di ci luyee sareet di dem ci dëkk yi di waxtaan ak ñoom di leen yee ci lan mooy doomu jàngoro Sida. bu ñu walee luyee sareet luyee sareet bu dee fa sori foo xam ne xam nañ sareet mënu faa dem ñu luyee oto ñu am ay film yoo xam ne di leen koy tegal film yoo xam ne ay Rwanda la jóge woon ay ay Uganda léegi ñu am benn télé boo xam ne dañ koo daajaloon kees ndax bañ buñ dee dem ci sareet yi ñu këngaj këngaj yëkkati ñu di ko ci teg dem di wàcc su desere di wax ak ay nit ñi daal di créer benn troupe théâtre boo xam ne moom itam li ñuy waxtaani ci biir causerie yi li ñuy sensibiliser dañ ciy def ay sketch dañ ci jël benn thème di ko def ay sketch lépp ci ndax tur bi itam lañ jëkk am ci outil de sensibilisation gannaaw la waxtaan ma ne fii ci Kéré àll ak li ko wër la woon woon ni na yaay Marème Kéré jàngal ñu jamono xiif jeex soxla faju tey Kéré àll njukkal sa njariñ yaay Marème Kéré suuxat na wile waar cey budul woon ak moom tund wi doy waar njariñ li mën a suuxat xol yi ñu xam ràññee sikki ma ne yaay Marème Kéré mu ñee ñu sëlam ñu ñu yeewu ngir ya laaw fu ñu taxaw tey di ñaan mu yokk fa ya laaw ay sama yaay booy mooy ndey ji seex bu du woon ñun ñu jirim ñu fàtte na moo ñu tette ba ñu aalim fàggu fegu génn coono di def laay fu ñu taxaw tey di way yaay maram keere bàyyi laay yàlla dogal bi nga xamee ne ñu ngi def noonu di def noonu sensibiliser nit ñi di sensibiliser nit ñi ñu dema dema dema dema dem ba ay jamono yu yàgg mujj bu demee ci penc mais foofu na xeex la woon te que léeg nga dem ci penc ñu ne la doo ko fi waxee léeg-léeg nga dem ci penc ñu ne la doo ko fi waxee lan mooy sida loolu dafa am dañuy naxaate rek wax la loo naqari mais comme yàlla rek a tax ngay def lañ lay wax bu dee naqari di nga ko jéem a muñ ma ne dëgg la ma ne dëgg la waaw boo demee ci te penc teg suñu télévision ak suñu vidéo wala ñu yor suñu média fan di wax ndax nit ñi doon bari bu ñu waxee ba pare ñu ni ma soxna Marième Kairé dama li nga wax lépp dégg nañu fi ñu toll tembe daal xam nañu lan mooy doomu jàngoro sida xam nañu nan lay duggee nit ki xam nañu yan mandarga la ak nan ñu wàllale wàllantee xam nañu planification familiale tam lan la mën a jëm ci jigéen parce que duñu day yàq njur de arrêté njur mais day tax nit ki mën a seere ay doomam ba duñu xiibal kon yooyu yëpp xam nañ ko dañu am problème ma ne ban mu ne wolof dafa lépp ni as gor balaa ngor a ma neex dëgg-dëgg dafay gor ci dara waaye gor su góorut ci dara bu yàggee mën naa goro di xam nga lu ñu bëgg kon nu jàppale ñu am loo xam ne dinañ ci man di liggéey jël suñu njaboot gi kenn dootu fi jóg di ji wut liggéey ci àll bi teg leen suñu wet def ci ñoom jikko yu baax def ci ñoom ngor def ci ñoom jaamu yàlla waaye def ci ñoom jom ngir ko ñu mën a liggéey yenn yi duñ ci dugg loolu daal moo nu bëgg moom lañu bëgg ñu jàppale bi ñibbisee ma woote waat réunion ne est-ce que suñu réunion démb daje démb bi gars yi li ñuy wax dëgg mën na ko romb ñu ma déedéet ma ne ndax dëgg mën na ko romb ñu ne ma déedéet ma ne kon nag am na lu xew nañ jéem a def ay pexe. ñu ne ba xam nañ ne léegi li ñuy wër di luwe di sensibiliser ji doyul tur bu bi nga xam ne mi ngi ànd ak ñun di sensibiliser doyul dañu war a am rajo bi ñu demee ba xam ne am nañu fréquence dañu jàppale Abdou Sarr moo ñu jàppale ba ñu am fréquence bi ñu amee fréquence gi nag ñu daal dëgër fi man moo daal dem arrondissement gis sous-préfet waxtaan ak ñoom ñu abal ñu kër am na benn maison de outil la tudd bu cene ba nekkoon fa moom lañ ñu abal ñu abbi émetteur informar ak ñoon abal leen émetteur ci dëgër fit <laughs> ab ab sees ab émetteur waaye continuer suñu liggéey nag former suñu ay animatrice ak ay animateur ñu commencé def seen liggéey waaye ba ñuy def seen liggéey itam boo abe yaa ngi fexe nag noo amee sa fi bopp du dëgg yàlla def ñuy góorgóorlu di dem di dem di ba jënd suñu terrain bopp tabaxal ko suñu bopp bi ñu jëndee suñu terrain bopp tabax ko suñu àll bopp tabax studio salle de rédaction la xaw ma nu ngeen koy waxee yéen ani yéen fa war a def yëpp ñu def ko fa nag. Gindiku FM 105.0 comme rek ni ñu ko waxee woon sànq ci suñu njëlbeen waxtaan tey nag ñu am ay gan yoo xamante ne nii euh, ñu nga bàyyeekoo li nga xam ne rek moom moo di TFM dikkoon nag seet si soxna Marème Kayre ak association bi nga xamante ne nii euh, moom la jiite xam nga kenn mënul wax association rurale de lutte contre le sida ay jëfam euh, fàtte li nga xam ne moo di rajo Gindiku FM 105.0. juróom-ñett fukki jigéen ak juróom yoo xam ne ay femmes reporters lañ leen di tuddee nga xam ne formation sementique lañ def ci ñoom ñu nekk ci biir dëkk yi di waxtaan ci seen biir dëkk di seet jafe-jafe yi nga xam ne moo nekk seen biir dëkk di seet itam koom-koom bi nga xam ne moo nekk seen dëkk naka lañ koy génnee jafe-jafe yi itam nan lañ def pour mën koo saafara ñu ngi nekk ci biir dëkk yi nga xam ne ñu ngi liggéey ak ARL e jàpp nañu jigéen ñi waxtaan ak ñoom ci gàllankoor yi nga xamante ne nii moo leen ci mën a fekk waaye tamit waxtaan ak ñoom euh, ci daal nga xamante ni noonu la ñu war a mën a sàmmee seen njaboot ba mu ci noppee mu leen di jàppale nag ci ak koom ndax dañu wax nit ki soo ko ne bàyyi lii dafay fekk nag nga ne ko ah bu doon sama sagoo nga jàpp ci lii euh, te defe naa ne association bi loolu la wax sànq soxna Mati wax nga sanq ba tudd ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo di femme reporter yi ñu gis ni kon femme reporter yooyu le su fekkente ni doon nañu dem dakaar yaakaar naa ne ñoom keneen nay wax wax dem Dakar ba mu des ñoom ndax mu mel ni am na lu baree bari loo xamante ne nii association bi ak ay way jàppaleem ci programme bi ñuy wax programme de développement du leadership de femmes rurales eh, defe naa ne def na ko ci yéen ñi nga xamante ni yeneen jigéen ñi rawatina femme reporter dama leen di wax na leen jigéen ña nekk ca Dakar di yéeg ci avion di wàcc ay conteneur dañ ñoo ëpp moyen waaye gënuñu ko mën te xam-xam bi ci suñu bopp yi buñ ko doxalee mën nañu lu ëpp la ñu mën parce que nag lu ñuy liggéey te fa ñuy tëdd tëddunu fa te li ma wér woor wóor mooy suñu sañsee nu sañsee kenn bindul monde rural sa kanam. femme reporter yi ànd ak ñoom ak animatrice yi nga xam ne ñoo nekk ay la di plaidoyer di sensibiliser di plaidoyer jigéen ñi ndax comme xam nañ ni li ñu bëgg mooy jigéen ñi léegi dañu war a yegg ca fa nga xam ne foofa la ñuy dogale. seen programme li ci ëpp pàcc bi am solo yéen ko jublu ci sensibilisation. sensibiliser askan bi sensibiliser jigéen ñi exode rural bi sensibiliser leen ci maladie yi lu ci mel ni sida waaye it yeneen jàngoro lan moo tax ngeen accès seen programme lu ëpp ci sensibilisation ndax da ngeen a xam solo toog sa dëkk di liggéey. waaw xam nañ ko te li gën a neex mooy dañuy développement du leadership des femmes rurales maanaam jigéen ju ne leader la jiit na avant tout sa biir kër bu ñu la nattee rek hmm. jigéen nga parce que bu borom kër

élection yi jàll gis nañ ne ñun ñi ñuy liggéeyal am nañu juróom ñett fukki jigéen yoo xam ne tey ay conseil municipal lañu te am nañ ci ñoo xam ne ay adjoint maire lañu loolu nekk loo xam ne lu am solo la te xam nañ ne programme bi moo nu may loolu nga xam ne am nañu ko te sukkandiku ko ci plaidoyer bi nga xam ne. Kaaw Kayre tey moom dafa signé dañuy signé contrat ak district sanitaire ba nga xam ne moo fa nekk fi mu ne dañoo signé contrat rek district bu xombal. nga xam ne bu ñu malade yi faju jee bu weer dee ki nga xam ne mooy président wu mutuelle de santé bi moom day dem hôpital pour fay facture nga xam ne am na ko fa bu fekkee ne carte de santé nga signé euh, euh, contrat wala poste de santé nga signé ak ICP comité de santé bi bu weer dee yow da ngay dem fay ñooñu say facture am nañu ay casque de santé casque de santé yoo xam ne li ko indi mooy ñun dañu jàpp ne ci sensibilisation VIH sida am na ñoo xam ne kenn mu leen a fekk fenn dañuy dem rek papilloma yi di dem ñu ne kon boog ñun nañ tepp marché hebdomadaire yi mag yi tabax fa benn tabax boo xam ne dañ koy def euh, saaru ñaari bureau ak salle de def fa matériel ak télévision ak vidéo former ay xale ay relais dugal leen foofa ngeen ñuy defe sensibilisation ca ngir ñi nga xam ne ñoo ñëw ci marché bi man fay dugg di fa jëlee ay xam boo demee tabax nañ benn marché Touba kon nga xam ne marché Touba Toul ni toll tabax nañu benn marché Mbafay kon nga xam ne Mbafay ni mu demee tabax nañu benn marché euh, Njagañaaw kon nga xam ne marché Njagañaaw ni mu toll tabax nañu benn marché Taset ku ne xam ne Taset tam na mu alti ni mu toll itam àdduna ay xalaat moo ko yor nit ki day xalaat ci sa dund fi nga nekk dangay ngay xalaat lan moo fi manqué li fi manqué lan laa ci man loo am solo la ñun dañu commencé fi mu nekk dañu xalaat ne dëgg-dëgg bu ñu xoolee réew mi tey bari na ay problème ci njàngu xale yi njàngum xale yi bari na trop ay gàllankoor ay jafe-jafe mais ñun dañu waxtaan ñu ne lan moo ci suñu wàll war a toog rek déedéet ñun waruñu toog naan rek jafe-jafe école bi nii xale ña ni nii nii la déedéet loolu ko def parce que li tax ñun tànk jigéen dañu war a dugal suñu loxo ci biir école bi école yi lan moo tax xam ne suñu aada ku ne xam ne dañ naan jigéenu Sénégal de li ñu xam mooy doom bu fi tekki tey ñu ne ndeyam a ko liggéey ci kër baayam lu am solo waaye doom bu fi mel ñu ne man ndeyam a bon ndeyam a liggéeyul ci kër dara mais ñun ñi nga xam ne suñu baaxee ñu ne noona suñu bonee noona noona est ce que war nañu toog rek di xooltaan xale yi ñu naan njàng bi njàng bi ñu daal di fas yéene jug taxawut ci ay pexe ba fi mu nekk taxawal nañu fukki association maire de élèves ak juróom-benn fukki association maire de élèves ak juróom-benn yoo xam ne commencé nañu def ay jéego ci biir école ñoom dañuy taxaw di inscrire xale yi dañuy topp xale yi seen kayit yi nga xam ne ay ay ay amuñu woon seen kayit seen parents yi dañu saagar ba amuñu kayit ñu wut ay audience forêt di wutal ay kayit di leen topp ca biir école ba lan lañ fa war a def di fa def ay toilettes di fa def leneen bi nga xamante ne euh, nawet baa ngi wàcc si ñoo béy lépp lu fi warugar daal jigéen ñi seen loxo nekk ci biir te ñaanu yàlla mu yem foofu parce que dañ ko boole ay ëpp parce que jóge nañ fi dem ba beneen di gëstu ji loolu parce que dañ ci am xam-xam. leadership Hmm? communication microfinance duñ ko mës a dellu ci mës a dellu ginnaaw toujours dañuy xool nuñ koy gën a dëgëral ak ñu koy mën a lawale yaatale ko ci ñeneen ñi ndax nag du gox yëpp am du gox yëpp am loolu gox yëpp a mel noonu kon ñun suñu warugar tey mooy fexe li nu yoor dëgër waaye nu fexe mu gën a yaatu itam ci suñu yeneen nawle jigéen ñi ci réew mi daf noo jàngal ni ñuy wutee ba am koom-koom ndax bu ndaamaraas amee fii dinañ fi mën a xëy lakk ñetti toon ci bi li ñuy lakk nag dañ koy bi ñu lakkee ba ngoon am na équipe boo xam dañuy ñëw bind leen fi liggéey séddale ko ñetti cër ñi fi yendu ba ngoon ñu am lu ñu jënd saabu yóbbuwaat ko seen kër ñaari cër yi ci des benn bi dañ koy yóbbu ci compte bi banque bi dañ koy denc fii jox ko trésorière bi bépp loo xamante ni soxla nañ ko muy bic muy kaye muy lu ñu war a def ci machine bi cër boobu ci lañ koy jënd bi ñu ko defee di ko degale di ko degale ba machine bi ñu doon liggéeyee bi ñu jëkkoon am canaba gaar la nekk foofu la siège bi nekk bu ñu amee 3 millions ñu xam ne Thiénaba Seck dafa war a am beneen machine ñu jëndaat beneen machine bi 3 millions andi ko fi bu ndaw bi ci ginnaaw bi taqaloog moom boobu 2 millions lañ ko jënde moom tam ñuy lakk mat leen ak ñuy lakk defar mburu suukar ci la ñuy lakk mooy bu ndaw sama ginnaaw loolu la ñuy def boo xoolee li gën a gën a gën a gën a gën a am solo fi ñu tollu tembe ci programme yi ñuy dawal mooy renforcement ci la bokk parce que nit ki itam lépp loo man di def te sa xam-xam bariwul mënoo ca am résultat yu baax su ëllëg kon xam-xam dafa am solo ci nit ndax am-am bi lu muy neex neex neex li muy baax baax bu ko xam-xam lalu rek am-am ba du sotti fenn du jàll fenn bu jàggee dana fa seelo ko kon fii nu tollu tembe fi ngeen nu fekk tey nii ci nu gën a amal doole ci li ñuy def la bokk ak itam xool nag suñu jëmuwaayu ëllëg jëmuwaay bi ñu fas yéene jëm ëllëg ba mu gën a am njëriñ ci askan doonoo gëm suñu bopp nag doonoo gëm sunu bopp doonoo gëmal suñu bopp man dama gëm sama bopp ñi ma àndal gëm suñu bopp man dama gëm ne nit réew du dox waa réew maa koy doxal dëkk mënul dëkk dox ña dëkk ñoo koy doxal gox mënul dox te du ña fa dëkk ñoo koy doxal ñun de duñu xaar Macky Sall dañuy def suñu kamtalaay kattan dañuy def suñu doole ba ku nu ci fekk rek jàppale na ci ndax li war ci askan wi ñëpp la war wàccul kenn gis nga doom aadama fu muy yegg tey ci àdduna te développement laa la wax de gëm boppam rek moo ko fa yóbbu gis nga faatu lépp lu doom aadama yi def te gëm sa bopp gëm na lii dama ko war a def te yàlla rek tax amul ab amul fu mënul yegg nun bi ñuy jóg mësuñu xalaat ne sax nit dana jël dërëm dina ko jàppale yàlla rek moo taxan ak suñu doole bopp kon moo tax ba ñun duñ ci yàkkamti dara la war a def ngir jàppale askan wi daal dañ koy def ngir jàppale askan wi la la cay fekk ëllëg na kooku yàlla moo ko xam te yàlla ku mu narul la fay du la liggéeyloo kon yàlla bu la liggéeyloo rek am na lu mën a mu ci yow ndaw mooy yaakaaru réew réew nag ba ca nekkee te xam ne yow la ñu yaakaar ëllëg nga doxal ko dafa am nooy taxawee kon nañu gën a góorgóorlu rek dolli yar bi nañ dolli yar bi waxtaan ci teey di doxal ci teey lépp luñ di def te ànd ko ak ab yar lu lépp lu di bëgg te jiital te yar ak teggin rek da koy am te dam benn problème kon loolu lay dénk ndaw ñi nañ gën a góorgóorlu te xam ne ñoom moom seen réew ndax ñoo suñu yaakaar ëllëg ngëm dafa metti gëm dafa metti eh, ndoorte itam dafa metti mais boo demee nag ba li nga doon sonn lépp yàlla di la won ay résultat ci loolu léeg-léeg dangay ngay toog ba yàgg nga xalaat loolu rek nga jooy fa nga tàmbalee woon na mu mettee woon na mu mettee woon na mu tàngee woon na mu tare woon tey bu yàlla dogalee nga dem ba mbir moomu gën a yaatu gën a law gën a am njëriñ ci nit ñi mais loolu mbégte la kon jooy yooyu jooyu bànneex lay doon ndax danga naan yàlla am na lu ma fayee kon jërëjëf yàlla. man ma maman Marième Kairé dama koy xool comme référence dëgg la ñun ay ndaw lañ ah jàng nañ fu nekk dem nañ fu nekk ñëw nañ mais bu ñu toogee ñoom toujours daf ñuy apporter lenn ñoom seen expérience li ñu dund ñun toujours dañ siy jàngee lu bëri mu nekk femme leader nag femme boo xam ne modèle la surtout côté développement. nga gis gox bi jógee fii dem fii wala nit bu yokk ba amul woon lii mu dem ba am ko tey lépp rek grâce à moom zone bii nii tey boo laajee ñu bëri xam nañ ko donc ñun dañ koy roy daal di ko naw na si loolu noon bu baax di ñaan yàlla tamit dem ba mel ni moom wax dëgg yàlla. lépp jigéen boo xamante ni yaa ngi yëngu fii te jaar ci moom lépp luy développement da nga ciy def sa loxo ba mu baax lépp luy wérgu yaram dañ ciy def sa loxo ndax moom. dafa bëgg nit ñi wér am ndax moom foofu la teg tànkam boo wéree ba pare nga am daf ñu jëkk a jàngal nu nuy aaroo nu nuy fajoo teg ci nag nu nuy def ba wut ba boo feebaree nga mën a faju kon loolu moo tax ñun ñuy dugal suñuy loxo ci yëngu-yëngu yi ba ku feebar mën a dem faju soxna su am fulla su bëgg liggéeyam fu xam fi mu jëm nag ndax Marième Kairé dafa nekk nit koo xam ne du xaddi du découragé du mer du xalaat du mer nag benn yoon liñ naan ndey ji seex rek njaaxaanee li tudde njaaxaanee li tudde kenn mënul na taxaw ne man la gën a bëgg ci bureau bi ñëpp lay male yemul nag ci liggéey bi doom sa problème mu sëy sax bu xamee ne am nga sa digganteeg sa jëkkër problème moo koy dox la ko ba mu jeex tàkk ba loolu dal duut ci jàmm. li mu defar ci ay sëy yu doy waar ci dëkk bi li mu defar ci kër yoo xam ne ñàkk déggoo am na fa fudul dëkk bi wax dëgg yàlla yàlla yàlla seere na ne ndam rek mën a juddu. jooy jooy sax def naa ko jooy mësuma xalaat bay dama daan mer parce que dama doon léeg-léeg da ngay dañ lay wax loo xam ne dana tàng soxal ba doo ko mën a muñ di jooy par rapport ak la tax a jóg yow lañ lay dëkkale ak la tax a jóg da du nekk benn moo tax saxoo tàng ngay jooy mais nag mësuma xalaat mukk découragé damay bàyyi déedéet am na li ma gëm ba pare te ma ci dellu ginnaaw te boobu fii ma toog loolu laa gëm day jëlale bëgg askanam te dungu leen a bi rafet na ñaareel ba mooy dëggu na ñetteel bi mooy woyof na ñeenteel bi mooy loxo bi ànd na ak xol bi loxo bi tabe na xol bi yéwén na wallahi lasim Mariam Kairé amul moroom jàmbaari sàkk tëdd la bu jigéen ñëpp mel ñoom dañuy ñaan kay leader yu bari ci gox yeeg gox gaxaan yi ñu bari ay Mariam Kairé loolu la di ñaan yàlla. ñëw nañu Kairé àll seet si sunu jàmbaaru tey di Adja Mariam Kairé ànd ak moom. dem Ngoundiane ànd ak moom dem Thiénaba amoon yéene dem Noto jàll Teset wala tubaatul ndax gox yooyu yëpp ñu lim ay nit yu bokk ci association wam ña nga fa di liggéey ñoom ñooñu di ay góor di ay jigéen dégg na ñu ngi fii tey ànd ak soxna si ñu def déplacement ñëw ñoom ngeen gis ñii ci ginnaaw mbokk yi ñu ay jigéen ak ay góor yoo xam ne dañuy liggéey soxna si nee ñu sax saa si waxtaan ak ñoom daf leen di faral naan ngor dëgg bala moo neex faaw borom góor ci dara loolu moo tax mu leen di ñaax ci liggéey moom it muy soxna soo xam ne ñu ko waxee ba mu amee fukki at ak juróom jàpp fukki at ak juróom benn ba tey mu ngi liggéey lu jege ñetti junni doomu aadama nekk ci ginnaawam soxna ma dem di lay jaajëfal ci teew gi di lay jaajëfal également ci ni nga nangoo wuyu suñuy laaj ak ni ñu passé ak sa journée euh, ñu bàyyi la nga wax sa kàddu bu mujj jërëjëf Fatou sama kàddu bu mooy gërëm rek sant ñi nga xam ne ñoom la àndal ci liggéey bi ndax defe naa ci baagi léegi bari na loo xam ne gis nga ko wax nañ la ko te nga ci bët te dama naan loolu lépp du mareem rek ñi ma àndal la ndax man ay gaynde ñu la àndal ñu bëgg seen bopp la ñu seen bopp ñu bëgg développement ñu bëgg seen fonk seen gox ñooñu la ma yàlla booleel kon lu am tey rek du mareem ñi ma àndal di leen gërëm di leen sant di gërëm TFM bu baax a baax a baax a baax nag di yóbbante ci Youssou Ndour ngërëm kontaan nañu ci télé bi yal na yàlla barkeel ko ci barkeel njol maag loolay sama mbokku yi ni ngeen ko gisee soxna Marème euh, Kairé ak ay jigéen yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci ginnaawam ak ay góor itam ma leen di jëfal yéen tamit ci seen teewlu di leen jox rendez-vous beneen weer ak beneen jàmbaar ci beneen gox ci Sénégal jaa jëf.